gannaaw bi nga xam ne marchand ambulant yi dañ defoon doxu ñaxtu ñu daal di nag taal mairie bu Kër Massar neexul benn yoon ñi nga xam ne ñoo jiite mouvement politique bi ñuy wax dynamique unitaire benn Bokk Yaakaar bi nekk ci gox ba. ñaawlu naa torop yàq bi ñu yàq mairie bi yàq dafa baaxul jégul sax ginaar waxuma la ak nit suñu kayitu maam mi ngi ci mairie bi suñuy kayitu doom suñuy sët lépp ngi ci commune bi rafetlu wu ma ko rafetlu dynamique bi rafetlu wuñ ko xamoon nañ ne lii bu ñu moytuwul dina am lu mel ni Kër Massar lii si boppam dañ ko waroon a contrôler ndax Kër Massar insécurité bi dafa doy waar dañ koy fustiger. ñooñu gannaaw bi nga xam dañ doon def benn déclaration de presse di ñaawlu tamit ni ñu yoree seen mairie nee nañ lii de mënoon nañ ko moytu bu fekk ni mair bi am na neneen nu mu doxalee woon. ñun moom mosuñu déglu. li ko neex lay def. laajul kenn amul conseil amul dara. ñu yaakaar dafa tas yaakaar waa de Kër Massar tas depuis covid ba mu taxawee ba léegi xale yi dañ leen a dëj benn place kenn liggéeyul kenn gorul kenn yettul julli gi jub si tabaski surtout nga xam ne tabaski mooy suñu yëf

ndax buñ ko deful la gendarmerie bi nekk fii moom kese mënu fee def liggéey bi yëpp. moo tax ñoom ñu ngi sàkku ci seen njiit Macky Sall daal di jël nag ay matuwaayam daal di leen tegal délégation spéciale. doo leen fi liggéey. moom it du fi liggéey na fi président indi lu mu fi teg ba këram muy pare délégation spéciale mu jël récépissé seet ku mën a yor commune bi jox ko ko mu téye ko parce que lii ñaawlu nañ ko ñi nga xam ñoo jiite dynamique unitaire benn Bokk Yaakaar bu Kër Massar jeexal nañ seen kàddu di sàkku seen naataango ñi nga xam ne ñoo fare ci nguur gi daal di ñëw lëkkaloo seen doole ak ñoom ngir mën a suqali seen gox bi ñu jàpp ne booba léegi dafa feebar